جابر أنت حبيبي السلام عليكم ورحمة bu ngeen gisee jataay bi xam ne ndigal bàyyikoo na ci xalifa général de kulu murit cheikh muntaka ñëw ci sëriñ ahmadou mbakke mi xalifa sëriñ moodu xari mbakke pof di muy woote bisub jàmbaar ju sell jooje di sëriñ Modou Khary Mbacké Pofdy ca daarul xidma Touba Pofdy mu war a doon la 11 décembre 2020 tolloog ñaar fukki fan ak juróom ci rakki gàmmu bis boobu nag sëriñ Ahmadou Mbacké mi xalifab sëriñ Modou Khary ak mboolem ku bokkal sëriñ Modou Khary Mbacké gépp moom la ñuy yëgal bokki taalibe yi xarit yi ak wëdëre yi di ko yëgalit mboolem daaray kaamil yi fu daaray kaamil nekk sëriñ Ahmadou Mbakke nee na jataay bii ko gis rek war ngaa delluwaat ca téere ya xam ne bis bu sëñ Modou Xëri jàmbaar ja ñëw na ngir fàttali ko ci alxuraan xasida ak salaatu na nabi ak lépp lu waay mën a ñaan ci lu baax yéene ko sëriñ Modou Xëri ak mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo nekk ca barsàqul Muhammadiya danañ yëkkati kàddu gi jox ko Cheikh Mouhamadou Mourtada mi nga xam ne mooy chef de village su daarul xidma Touba Pofdi bu noppee daanu yëkkati kàddu gi ci topp jox ko sëriñ Jiiri Mbay Longoor bu noppee daanu yëkkati geneen kàddu gi jox ko sëriñ Modou Roqee Mbakke su noppee daanu jox kàddu gi sëriñ Sang Njaay mu wax ci turu mboolem taalibe yépp yu aju ci kër sëriñ Modou Xari su noppee nag daanu jox kàddu gi sëriñ Moustapha Mbakke mu wax ci turu sëriñ Xaadim mi nga xam ne moo yore kàddu sëriñ Ahmadou Mbakke mi xalifa sëriñ Modou Xari Mbakke Pof di di am mbette bu baax di teew ci jotaay bi di jotaayu wàccaayu bisu Cheikh Mamadou Xari ñu bu baax sëriñ Ahmadou Mbacke mi nga xam ne mooy kilifa ak bi ak mboolem njabootu Cheikh Mamadou Khary Mbacke gépp gi fi teew euh, ñuy wax nag ci turu dëkk bi euh, ci ndigal li nag jóge ci sëriñ Ahmadou Mbacke moom mi ñu ko dénk ñuy woo mbokk yi nga xam ne ñoom lañu ñu bokkal euh, tund wi di ci jiital Daaru Rahman di leen woo ci bis bi di ci tegit Ngasama Eh, di ci teg ndokk kër kabbu tuuba ndigal bakkura njurul bombali bushra bobi daaru nahim taysiir guy gi ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci bésu Cheikh Mamadou Khary Mbacké bii nga xam ne moom lañuy woote di sàkku seenu teewaay waaye fépp fu fa daara nekk fépp fu fa jànkatu xasida nekk ñu xam ne bés bi moom euh, nañ ko tàmbali ginnaaw bu ñu déggee kàddu gi rek nañ tàmbali al alquran ji tàmbali xasida ji te yéene ko Cheikh Mamadou Xarim Mbacké ak njaboot gi ñi nga xam ne jiitu ji nañ euh, ñooñu ñooy dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo ñu wër ñaleel waraat noonu rek lañ ñuy euh, jokkalee ba lépp mat ginnaaw loolu it ñuy profité rek di ci sof kàddu kër gi muy kër Serigne Amidou Mbacké ci njiital Serigne Modou Mamoun xalifa Serigne Amidou Mbacké mu waxoon ne nañ ko soññal njaboot gi soññal ko taalibe yi soññal ko jigéen ñi nga xam ne ñoom la bokkal kër gi muy kër sëriñ Amidoune gépp mu wax ne rakkam yi nga xam ne ñoom la bokkal kër sëriñ Amidoune moo ñëpp rek mi ngi leen di soññaat di leen waxaatit ñu takkuwaat yëkkatikuwaat comme nañ daan doxe ci bés bi di wax ne mi ngi leen di soññu di wax ne it soññee bi moom Euh, dañuy fàttali rek waaye comme nañ ko daan doxee rek nañ yokk jéego yi te yokkaat bu baax a baax a baax Pastef beeg taxawaay bi te xam ne képp ku nekk la muy liggéey Cheikh Mouhamadou Xarim Mbacké la koy liggéeyal euh, de njabootu euh, kër Serigne Amidou Mbacké gépp ak mboolem njabootu Cheikh Mouhamadou Xarim Mbacké gi loolu la ñu waxoon ne nañ ko jotal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam di sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul li war a jotaay nag ñi ngi yëkkati kàddu ci kanam suñu kilifa di sëriñ Ahmadou Mbacke xalifab sëriñ Mouhamadou Khari Mbacke jot na ndigal ci ki nga xam ne mooy xalif sens de Mouride sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacke Khadim Rasoul ak ci nga kilifaam sëriñ Ahmadou Mbacke euh, sëriñ Ahmadou Makhtar Mbacke xalifa Cheikh Mouhamadou Moustapha sëriñ Ahmadou Mbacke moom sëñ xalifa sëñ Modou Khari Mbacke foofu di mi ngi soññi mbooleem buntu kër yi sëriñ Mouhamadou Khari Mbacke foofu di yëpp mi ngi soññi njabootu sëriñ Miftah Mbacke gépp mi ngi soññi njabootu sëriñ Hamidou Mbacke gépp te sëriñ Mouhamadou Mbacke nekk ca bopp ba mi ngi soññi tamit njabootu sëriñ Ibrahima Mbacke njurul gépp te sëriñ Afia Mbacke njurul nekk ca bopp ba mi ngi soññi tamit euh, rakkam sëriñ Moustapha Ndiagne mu soññi njabootu sëriñ Baara gépp góor ak jigéen mi ngi soññ njabootu sëriñ Abdoul Karim te sëriñ Xaadim Mbacke moom sëriñ Abdoul Karim nekk fi jëwriñ ñi sëriñ Abdoul Xaadir Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Abdoul Karim mi ngi soññi tamit Euh, soxna njabootuk soxna bu sa daam te sëriñ alxaaji nekk ca bopp ba ak njabootuk soxna ami mbàkke gi te soxna faati mbàkke nekk ca bopp ba ak njabootuk soxna faati mbàkke te soxna soxna njaay nekk ca bopp ba yëpp nag bi mu koy bi mu koy laataa des nas ko mu ngi ko defee ci kanam ki nga xam ne moo fi des ki njabootuk sëñ Modou Khary muy soxna Tayratu Mbàkke mi nga xam ne lu ñuy def wala ñuy wax ci ci ci ci ci turam lañ koy defee moom mi ngi ko soññ ak njabootam gépp soxna Tayratu moom moom bis bi lu ñu fi def moom la ñu ko defal kon mi ngi soññ ak njabootam sëriñ Maxtaar Mbacke ak sëriñ Modou Mamoun Mbacke ak soxna Maam Assa mbakke mi ngi soññ tamit ñi nga xam ne ñooy sëti jigéen yi ñi nga xam ne ñoo mag ci kër yi soxna Loota Mbacke mi nga xam ne moom mag ci mboolam njabootu sëñ Baara gu jigéen gi mi ngi koy soññ ñëpp ak soxna Maam mi nga xam ne moom sëñ Ibrahima Mbacke njurul mi nga xam ne mi ngi koy soññ moom it moo ko ay rakam ak mboolam njabootu sëñ Ibrahima Mbacke gu jigéen gépp ak soxna Ami Mbacke moom sëñ Amidun ak mboolam njabootu sëñ Amidun Mbacke gépp ñu moom it mi ngi leen ngi leen di bi bi loolu tam sëñ sëñ bi mi ngi waaw ñi nga xam ne ñooy bëkki sëñ Mouhamadou Xari Mbàkke yëpp njabootu soxna Faati Balla Suxra bu ñu ko waxee tamit njabootu soxna Jature dugg nañ ca biir ak njabootu sëriñ Mouhamadou Mamoun Mbàkke moom Daaru Salaam ak njabootu soxna Mariama Mbàkke mi ngi woo tamit ñi nga xam ne ñoom la bokkal njabootu sëñ Xaramin Mbàkke gi muy njabootu sëriñ Modou Ajara mbakki gépp te sëriñ falu mbakki nekk ca bopp ba sëriñ bi nee mi ngi woo mboolem seexi seriñ tubaay yëpp mi ngi mi ngi woo ñëpp mi ngi woo it fu taalibe mën a nekk mi ngi woo itam njabootu maam maaram gépp ak njabootam bu soobe gépp sëriñ bi nee na mi ngi woo ñëpp bayut kenn bis bi itam mi ngi war a tolloog ma naar fukki fan ak juróom ci rakki gàmmu tolloog la 11 décembre sëriñ bi nee mi ngi ci woo bis bi nag li ci soppiku ren lañ daan def dara soppiku ci lañ daan def dara soppiku nañ ko daan màggal nañ koy màggale waaye li ci soppiku mooy cérémonie officielle bi ren du am waaye bu demee ba ginnaaw tàkkusaan nag sëriñ bi daana dajale bokk yi ak soppe yi ak taalibe bi ak xarit yi soññante ñoom ci lu jëm ci dëkk bi ak mboolem naal bi nga xam ne moom la fi naalal sëñ Mouhamadou Xarim Mbàkke muy jëmaam ji dana ci daje bokk yi ak taalibe yi soññi leen ci bis bi bu ca àggee ci bis bi mu jullee tàkkusaan ba noppi wa rahmatullahi wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñu sant yàlla julli jonte bi sant Serigne Touba di jot li ay kàddu yu xam ne ci la bàyyi ko kilifa di Serigne Ahmadou Mbacke xalifa Serigne Mouhamadou Xarim Mbacke Touba Pofdy tey ñu nekk waajtaayu màggalu Pofdy ñu am ndigal ci Serigne Mouhamadou Mountakha mu jaar gi Serigne Ahmadou Mbacke mii ñu jublu ci waajtaayu bisu màggal gi mu ci woo ñi mu bokkal. réew mi ñu mbokkal Touba ak mboolem taalibe yëpp ki nga xam ne nag mooy kilifa Touba di monsieur le maire sëriñ bi dafa wax nañu woo ko ci magal gi sant ko soññ ko ci taxawaay mu rafet bi na am ci dëkk bii bis bi nag dafa jub si moo tax ñu koy fàttali naan taxawee ci dëkk bi ab taxawaayam lu mu ci mën mu yokk te xam ne bis bi jege si na mu wax ne mi ngi koy sant bu baax di ko ñaanal suñu borom dafa ko taw feex ndax am na yéen ci dëkk bi lool kon nag Abdou Ka ñoo ngi lay woo ci bis bi ñu ngi màggalu Pofdy le 11 décembre tollu ajjuma ñaar fan juróom ci rakk ji gàmm mu ne mi ngi ciy woot xaritam président maître Madické Niang di taalibe ci kër gi di ku na xam ne taxawaayam ci Touba mi ngi ko yëgal bis bi moom it di ko yëgal président Pape Diop mu ngi wëlëru sëñ bi bu baax di taalibe moom it ci kër gi mu ngi koy yëgal bis bi di ko fàttali mu ne mi ngi koy yëgal ñi nga xam ne ñooy honorable député yi nga xam ne ñoo ne ci département de Mbacké ci njiital Serigne seex Mbacké moom Serigne Bara Dolly di président groupe parlementaire bi bu parti démocrate sénégalais mi ngi mu ne mi ngi koy yëgal magal gi ndax magal gi bisam la ndax daa bokk ci kër gi moom ñaari anam taxawaayam ci kër gi day ñaari cër yoo xam ne sëñ Modou Khari maamam la ba noppi mu bokk ci ñi ñi saytu réew mi mu ne mi ngi koy woo ci bis baax di ci teg Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly bokk gis-gis honorable député moom it sëriñ Ahmadu mi ngi koy woo ci bis bi di ko yëgal ni mu ci woowee sëñ Cheikh koy woo ñoo ci bokk taxawaay seen kër maam la ñuy bis mi ngi ko ci woo bu baax di ko fàttali bis bi mu ne mi ngi woo soxna Asu Mbàkke mu sëñ Abdoulahi borom dër moom it ñi ngi ñi ci am cër ci am cër moom it di honorable député sëñ mu ne mi ngi koy fàttali mag gi di ko yëgal bu baax mu ngi ci woo honorable député Moustapha Diop di taalibi moom it dëkk fii Darou Khoudoss sëñ mu ne mi ngi koy yëgal màggal gi di ko fàttali bu baax di koy yëgal honorable député soxna Fatma Diop Mbacke sëñ bi mi ngi koy yëgal bis bi moom it di xam ne taxawaayam moom ci kër gi ràññee nañ ko baax di ko yëgal sëriñ Fallou Mbacke président conseil départemental bu Mbacke mu sëñ Mbacke Soxna Lo ku xam ne digganteem sëñ bi moom di ci kër gi sëñ bi mi ngi koy yëgal bis bi di ko fàttali bu baax te xam ne kër gi kërama ah ñun nag ñoo ngi wax ba noppi soñ soññi mboolem ñi nga xam ne ñoo bokk ci sëñ Ibrahima Mbacke njurul ci njiitu sëriñ Afia Mbakke ak mboolem taalibe yi nga xam ne ci gi yëpp ñu leen fàttali bis bi ci ndigalu sëriñ Axma waaw bis bi daal ñu ngi sëñ koy fàttali ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn bàyyiwul kenn asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ngi leen di nuyu kenn ku ne ci santam ci ndigalul sëriñ Ahmadou Mbakke mi xalifa sëriñ Modou Khary Mbacké Pofdy kàddu yi nag day lu xañ na lu mënta ñàkk rek ñu jox ñu ko waaye lott nañ lool ci di yëkkati kàddu ci suñu kanam kilifa yi ndax bu ñu xisee yëkkati kàddu rek daanaka wax ji matoon na waaye ñoo ngi soññ mbooleem ku yaakaar sëriñ Modou Khary Mbacké di taalibe ak foo man di nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñoo ngi lay soññ di la yëgal ne la bés bi jub si na muy le 11 décembre ñoo ngi koy yëgal mbooleem bokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci buntu kër yi Seex Modou Khary Mbacké yëpp ci juróomi buntu kër yëpp di leen soññ ci bés bi ñu ànd ci ak pas-pas jéem cee sàkku ngërëm ndax taalibe lu yëngu ci kër sëñ bi rek na na yaa na jàpp ne loola mooy faj aajoom kon ñu jàpp ne bis bii ci la suñuy aajo di fajoo lépp loo xamante ni waaye mën na ko ci ci lu aw yiw ci wax walla dox walla def walla bernde na nga ko def ñi ñi dëkke dëkk bi nañu génn néegi yaatal gan ñi ñu dal ñu berndeel leen tatagal leen ñi ñëw dikk ci jàmm fekk fi jàmm del ñu màggal ci jàmm ñibbiwaat ci jàmm bàyyi fi jàmm bi bàyyi bi jaa bi jaa inna fi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Modou Khary Mbacké salaamaaleykum euh, mbooloo mi maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyoo ci turu sunu kilifa sëriñ Ahmadou Mbacke xalifa sëriñ Modou Xari waaye di nuyoo ci suñu turu kilifa soxna Taayiratu Mbacke di wax ci kàddu suñu kilifa soxna Taayiratu di woote sunu bisu jàmbaar ji moo dellusiwaat sëriñ Modou Xari ñuy woo mboolem njabootu sëñ Modou Xari gi di ci jiital soxna Loota Mbacke moom sëriñ Baara waaye di woo soxna Ami Mbacke moom sëriñ Amidou di woo soxna maam Awa Mbacke moom sëriñ Ibrahima di woo soxna. Soda Ndiaye moom soxna maam Faati di woo soxna Ami Mbacke soxna Faati Mbacke moom soxna Ami di woo soxna maam sa Mbacke moom soxna Taayiratu di woo mboolem njabootu sëñ Modou Xari gi di woo soxna Awaka moom soxna Busa Daam njabootu sëñ Miftaar di woo mboolem taalibe yi di soññi taalibe yi jigéen mboolem daayira yi aju ci kër gi ñu ngi leen di woo ci bis bi di ñaan ñu teewee ko ak jàmm te lépp duñ ci jaamu yàlla yàlla na ko suñu borom nag jërë ngeen jëf. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. sëñ Ahmadou Mbacké ci kàddoom lay waxe jëm jëm ci mbokki taalibe yëpp mbokki jullit yëpp ci jëwrinam sëriñ Xaadim Mbacké ak sëriñ Moustapha Mbacké ak sëriñ Cheikh ñoom nag ñoo war na toog fii ma toog ni wax waa dañ fee nekku dañoo nekk ci yeneen yitte sëñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm te di ko fàtt te di yëgal mboolem euh, njaboot maam maaram gépp ku ma ci maam Ahmadou Fari ba ci maam Balla Aïssa di ko yëgal mboolem njabootu Mamour Anta Sali gépp di ko yëgal mboolem rawti ay mbokki boppam di waa kër sëñ Modou Ajara ñu ngi leen koy yëgal ñëpp rawatina njabootu maam Balla euh, soxna Fati Balla Soxra ak soxna Fati Ball soxna Fati Ball Kabir moom euh, di waajuru Sëriñ Mbàkke Buso ñu ngi leen koy yëgal ñoom ñëpp di koy yëgal njabootu Cheikh Modou Mamoun Mbacke di ko yëgal njabootu Soxna Mariama Mbacke di koy koy yëgal ñëpp bàyyiwul kenn rawatina nag euh, bàjjenam di Soxna Tahirou Mbacke nga xam tey jii bu doon góor tey moo nekk fii ci jataay bi kon nag bàyyiwul kenn mi ngi koy yëgal ak njabootam Cheikh Mouhamadul Mokhtar Mbacke ak seen Maamun Mbàkke ak soxna Aysatu kon nag sëñ bi nee na mi ngi leen sant bu baax di leen gërëm yal na ñëpp ñëw ci jàmm te delluwaat ci jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa yi bis baa ngi noonu woote baa ngi noonu bisub Serigne Modou Khary Mbacke Pofdy ci Daarul Xidma Touba Pofdy mu war doon la 11 décembre atum 2020 yem ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru rakki gàmmu sëriñ baa ngi ko yëgal bokk yépp bàyyigul kenn. rawatina nag njabootu sëriñ eh, Modou Fadiama Niang ca Touba Kër Niang ñoom ñëpp sëriñ baa ngi leen ko yëgal di ko fàttali di fàttali waat mboolem daaray kaamil yi njàngum alxuraan ndax yitteel na sëriñ bi lool na xam ngum xamoon taxawaayu sëriñ Modou Khary ak alxuraan bis bi nag bu nu xëyee ci àjjuma ji dañuy yendoo jàng alxuraanul karim durus xasaayit taalibe yi ak bokk yi ñëw ñu dalal leen suñu demee ba julli tàkkusaan ba pare ginnaaw bu ñu amelee bernde yi ba julli tàkkusaan ba pare sëriñ bi dana dajale njabootub sëñ Modou xari gépp ak taalibe yi waxtaan ak ñoom dénkaat leen soññ leen ci néegu yàlla bii nga xam ne sëriñ Ahmadou Mbacke bi xalifab sëriñ Modou Khary taxawal na ko ci dëkk bu tedd bii nga xam ne mooy daarul xidma di Touba Pofdy muy jumaa ji nga xam ne sëriñ Ahmadou taxawal na ko soññiwaat ci taalibe yi soññiwaat leen seen digg ak seen borom subhanahu wa taala dénk leen ñaanal leen ñoom ñëpp ñu mën a yeweeku kon màggal gi lépp ci bëccëg bi la yem képp koo xam ne daa nga ñëw ci bisub sañ Modou Khary na nga xëy ñëw yandu si ba tàkkusaan sëriñ bi yewi la nga yeweeku kon màggal gi lépp ci bëccëg bi lañ ko yemale ndigal loolu moom la sëriñ Ahmadou Mbacke joxe mi xalifa sëñ Modou Khary Mbacke Pofdy kon ñu ngi koy yëgal ñëpp bàyyiwunu kenn bàyyiwunu fenn bàyyi bàyyiwunu ñenn di ñaan képp koo xam ne teew na ci rek mu daje cee ngërëmul ko tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bamba fari anta jaay anta jaay